salaamaaleykum internet bpactu.com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci nekk ci turam ak ci santam di leen jaajëfal di leen dalaat ak jàmm ci tey revue de presse mardi bi 20 octobre 2020 ma ci ànd ak ñaan bi Amina maa ngi ah, naa loo Omar di siyaar képp ku ñu suivre saa su nekk sur la bpactu te di leen dalaat ak jàmm ci seen xibaaru revue de presse. noonu la demee ñu ubbee ko ak journal bu record mu daal di ñëw ak ñun ci li nga xamante ne moom mooy Ligue des champions Manchester United ak Paris Saint-Germain dina nekk kër trouvaille boo xamante ni ñu bari na mën nañu ko. Ligue des champions baa ngi noonu première journée comme ni nga ko waxee rek war a doxee ci diggante Paris Saint-Germain ak Manchester United mu war a nekk tamit match de retrouvaille boo xamante ne dinañ fa gisu ku ci mel ni Gana Alfred ak Crépin. yaakaar naa ne ba sax mi ngi ci biir dina nekk loo xamante ne ni daal ci mardi bi incha allahu rabbi tey jii ñoom ñëpp ku ci nekk mën ngaa gisante ak ka ne ni namante woon ngeen wala xamante ne waroon ngaa gisante ak moom. waaye FIFA Amina Ndiaye ñoo classé li nga xamante ni moom mooy les meilleurs gardiens de but fi mu toll nii nag ki nga xamante ni moom mooy Edouard Mendy bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom mooy cinq top Afrique yi. liste baa ngi noonu génn na Edouard Mendy bokk na cinq top des africains waaye ki nga xamante ni moom moo di Alfred tamit daal dinañ koy nommé troisième portier fële na la ci diwaanu France. yaakaar naa ni nekk na loo xamante ne ni lu am am solo la nekk na loo xamante ne ni lu jara sagoo la lu jara ndamoo la ba tey rek ci li nga xamante ni moom la ñu gis ci journal bu Le Quotidien. mu daal di ñëw ak ñun ci ñi nga xamante ni ay sénégalaise la ñu ñu daal di leen jàpp ci diwaanu Libi toll nañ ci 5 ay doomu réew mi lañ te ay jigéen lañ. juróomi sénégalaises yoo xamante ne fële na la ci diwaanu Libi nag lañ leen euh, jàpp tëj leen fa mënuñoo gis seen famille mënuñoo gis seen doom te dañ faa demoon ngir rejoindre ñi nga xamante ne ñoom ñoo di seen ay borom kër jamono ji nag daal dinañuy saisir ki nga xamante ne moom moo di ministre des affaires étrangères moom ci jëmmi boppam téye na dossier boobu commencé koo traité ngir mën leen a euh, indiwaat fii nii ci suñu réew rapatrier ci na mu gën a gaawee euh, témoignage ci ñoom ñi nga xamante ni moom moo di seen borom kër yi témoignage yoo xamante ni daw na yaram mi ngi ci biir journalu quotidien yaakaar naa ni nekk na loo xamante ni Amina Ndiaye metti na diis na ndaxte boo jugee pour dem seeti sa borom kër ñu téye la fa teg la yenn coono yi dina nekk loo xamante ne nii du koy jar kon nag suñu njiitum réew état bi am nañ ci part de responsabilité pour jëli ji ñooñu nga xamante ne ñu ngi fa. waaw comme ni ma la ko waxee rek ministre des affaires étrangères moom mi nga xamante ni moom moo yor protection sénégalais yi nekk bitim réew moom jamono ji moo ngi ciy dox ay jéego ngir mën leen a indi ca na mu gën a gaawee. kon boog yaakaar naa ne nañu ci taxaw mu nekk loo xamante ne ni lu gaaw a gaaw a gaaw lay doon les échos daal di ñëw ak ñun ci ki nga xamante ne moom mooy Serigne Mbaye Thiam nekkoon ca PS. Serigne Mbaye am nekkoon ca PS jamono ji nag mi ngi yëkkati ay kàddoom ni wax na pour euh, remplacer ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Tanor Dieng ba tax na bu Bounama Sall nekk euh, euh, secretaire général de la jeunesse socialiste moom jàpp na ni c'est comme s'il avait poignardé le parti dans le do dafa jàpp ni daal lii nii mu bëgg a def trahison la ku ci mel ni ma Mamadou Mbow Diouf jàpp na ne porter un secretaire général à la tête du PS nekk na loo xamante ni dina diis lool Mbaye Thiam bëgg-bëggam jamono ji ak ñeneen ñi liñ koy jugé bokkul yaakaar naa ne nekk na loo xamante ne ni itamit mbirum aju politique gi la kon nañu leen ko bàyyee rek ndaxte ñoom ñoom seen bagage xam nañ nu ñu koy lijjantee bu baax a baax a baax waaye les ko dafa am ci li mu des ci li mu des moom mooy mbirum homosexualité maanaam borom ñaari kuri turi góor jigéen yi nga xamante ne ñi ngi ci réew mi di amal seeni ay mariage di dund li nga xamante ne ñu ngi koy dund te defee wuñ ko fenn fi nga xamante ne ni moom mooy ci Sacré Cœur 3. Euh, na te histoire du ko gën a yéeme fële na la ci diwaanu Sacré Cœur 3 la xewee lu tollu ci euh, ñaar fukk ak juróom borom ñaari tur yoo xamante ne lañ leen naa jàpp la main dans le sac ñu nekkoon ci wenn appartement euh, ñaar ci ñoom nag dañ doon célébrer seen mariage di takkante ay bague de fiançailles ak lépp doon marié seen biir keneen ci ñoom doon célébrer anniversaire am ñoom nag bañ leen fa fekkee fekk nañ leen ci anam yoo xamante ni ñaaw na trop fekk nañ fa tamit yeneen jumtukaay yoo ni yéeme na trop lu ci mel doon utiliser ñu nekkee ñaari marié na nag ni moom moo fa xewoon dawuñu ci yotaa benn yoon waaye bu ñu seetloo ñi nga xamante ni ñoom fa teewoon ñoo ngi âgé entre 17 ans 18 ans 20 ans jàpp 30 ans maximum amul kenn koo xamante ni am na lu ko ci dépassé tey ñu ci ëpp ñoo ngi jóge ci banlieue dakaroise garçon ak adulte ya nga xamante ne ñoom ñoo fa nekkoon ah, nee na ñu d'après journal Les ko koo ci ni jàkk rek da ngay yaakaar ni sa mag bu jigéen nga jàkkaar lool yaakaar naa ne Amina Ndiaye man à chaque fois damay jommi ci suñu réew à chaque fois damay yéeme ci suñu réew ndaxte bu ñu demee ba gis ay góoru lëng taxawoon nii ñoom ay góor jigéen lañu di mayante di def seeni ay bagages yaakaar naa ne nag lii Euh, à chaque fois rek li ñu war a wax wala li ñu war a def moom mooy di jéem a dénoncer yu mel nii parce que à chaque fois ñuy gën a avancer muy gën a dugg ci suñu population. parce que li demel mësta am ñi nga xamante ne âgé nañu 17 ans 18 ans ba 20 ans mosoo leen dégg ci yëf yi ci leneen lañ leen doon dégg bu demee ba dégg leen ci lii kon nañu tiit ci suñu population bi nañu tiit ci suñu ay raq xam ni lu ñuy gën a dem. muy gën dugg ci gone yi. liñ naan li moom musul am waaye musul am moo tax ba tey les ko daal na koy yaatalaat ndax boo gisee titre waan na beneen titre boo xamante ne mbirum homosexualité la ndax ak benn borom ñaari tur boo xamante ne dañ koo jàppoon daal di koy euh, bastonné fële na leen euh, waa par euh, daayira waa Safinatul Aman ñoom nag la regroupement wu LGBT yi daal di jël daal di leen di porter plainte traîner leen devant la justice de l'Union européenne ba tax na ku ci mel ni Serigne tamit daal di duñ koy porter plainte ak yeneen sëriñ yoo xamante ne ñoo ngi fële ca diwaanu Touba. yaakaar naa ni gëdd gi nga xamante nii am nañu ko ci àddina gëdd gi xamante ne ni am nañu ko wala ak daraja gi nga xamante ne ni ñu bon ñi darajaal nañ leen ko war nañu xoolal bu baax a baax baax naka la ñu koy wàññee mu gën a léger parce que kii jóg ngir xeex ñaawteef heure bu ko xeexee rek yoon dal ci kawam heure bu ko xeexee yër bi dal ci kawam à un moment donné dootu ko xeex dootul jógati pour loolu jóge fi day nekk loo xamante ne nii boo ko gisee sax doo ko dénoncé kon nañu xoolaat bu baax a baax a baax nu ñuy amalee yooyu mbir waaye journal bu l'observateur Amina Ndiaye dafa daal di ñëwaat ak ñun ci li nga xamante ne nii moom mooy li ñu gisaat fee rek ci mariage yi nga xamante ne moom mooy xew ci dëkk bi ay borom ñaari tur di ko amal. mais leneen li nga xamante ni xew na ci Louga itamit journal bu l'observateur daal di si ñëwaat. Louga la nga xamante ni xew na fa journal bu l'observateur daal di ci ñëw ak yéen muy euh, doom ji dafa xëy ni yaay ji daal may ma cent franc yaay ji daal di bañ mu daal di jël kër gi daal di koy taal ba indi foog fa musiba boo xamante ni kenn mënul xam na mu toll. yaakaar naa ni Amina kooku mu bu dee ànd na ak sagoom sax am na lu ko dese parce que yow li nga ñaan bariwul cent nga ñaan ñu bañ yow ngay da kër. ñu daal di taal kër comme ñu ko gisee nii rek dafa am gone yoo xamante ni moom dañoo yaru seen uh, yaru bopp. yaakaar naa ne ba tey ci njiitum réew wala président de la république war na ci li nga xamante ne ni moom mooy mbirum koom bi en 2021 moo tax budget bi nga xamante ne nii à chaque fois ñu ngi koy bëgg rek dañu koy fësal ci journal loi de la finance 2021 boobu noonu daal suñu njiitum réew daal di amal jamono ji li nga xamante ni moom moo ñeel wàllum koom-koom bi li nga xamante ni daal moom le président de la république di gérer ak ay ministre jamono ji daal dina ci jël ay décision ferme ba tax na nag journal bi nee na euh, suñu njiitum réew daal dinay mis fin à cette bamboula comme niñ ko titré rek euh, baisse de 10 milliards de francs instruction yoo xamante ne dinañ ko jël ci dépense yi. am na solo trop waaye Amina Ndiaye ñi nga xamante ne ñooy ay bachelier am seen li nga xamante ne moom mooy seen ay bac fi mu toll nii nag mbirum ubbite gi ci la ñu nekk nii en 2020 2021 te nekk na loo xamante ne ni loolu moom lu jar a taxaw la. loolu lu jar a taxaw la comme ni nga ko waxee rek diggante 2020 ak 2021 yàggatul ba tax na daal nañ xaare ni li nga xamante ni moom moo di année universitaire bi donte sax jamono ji am na ba tey ay complications yoo xamante ni moom moo waral ñenn ci étudiants yi di continuer di fësal seen nakar ak seen tiis ay grève am na solo torop waaye l'observateur Amina Ndiaye ci xëtam gu njëkk tey dafa tiitare ki nga xamante ne moom mooy Gris ak Gaston Mbengue mu daal di ne non respect de contrat Gris Bordeaux ginnaaw bi mu nee du bëreeti ak Gaston du bëreel Gaston Mbengue te booba mi ngi làq 10 millions Gaston meng ndax lekkoon na avance am booba tey nag delloowu ko ko moo tax Gaston Mbengue daal di koy porter plainte nag ci gendarmerie bi. Olof Ndiaye dafa tàmm naan koo lekk avance am di ko bëreel waaye koo jël avance al tamit di nga làng moom ci biir arène bi kii nii di Gris doo jëloon na avance Gaston Mbengue waaye nanguwul bëre nanguwu koo bëreel ba tax na nag Gaston Mbengue jamono ji boobu ba tey mi ngi naan ko Gris Bordeaux indil ma li ma la jotoon a jox indil ma li ma la jotoon a jox mbir ma di traîner ba Gaston Mbengue daal di koy traîner en jamono ji daal dinañ koy convoquer euh, ci euh, gendarmerie ba bi nag comme ni ko journal L'Observateur waxee rek. entourage yu Gris Bordeaux ñoom ñoo confirmé boobee plainte avocat wu Gaston tamit nag mu ngi avoqué benn abus de confiance de la part de Gris Bordeaux. waaw yaakaar naa ne nekk na loo xamante ne ni itamit nag lu ñu waroon a waxtaanee la ba yegg si fii parce que lii bu yàqulee image yu làmb dina yàq ci làmb lu bëree bare bëri ndax bu ñu demee ba mbër ak promoteur di yàgg ci yoon nag yaakaar naa ne war nañ koo xoolaat bu baax a baax waaye ba tey si journal bu suñu làmb ki nga xamante ne moom mooy le président Abbas Ndoye li mu wax rek ci li nga xamante ni moom mooy potentiel adversaire Gris Bordeaux nee na Lac de Guiers numéro 2 la. Lac de Guiers numéro 2 comme ni ñu ko waxee rek potentiel lu adversaire Gris Bordeaux c'est Lac de Guiers 2 Abbas Ndoye président bu Fass tamit jàpp na ne Gris Bordeaux dañ koo laal ci honneur maanaam daal ci dignitéem la ñu touché loolu moom moo waral jamono ji li xew ci kanam daal di xew. yaakaar naa ne nekk na loo xamante ne ni lu am am solo la ba sax am na ñoo xamante ne bëgg nañu. taxawal combat Gris Bordeaux ak Lac de Guiers de 2 sax bay wax waxu premier face to face bi ñu bëgg yóbbu ci États-Unis New York. États-Unis New York kon ni nga ko waxee rek dafa mel ni avancement yu baree baree bari am na ci diggante Lac de Guiers 2 ak Gris Bordeaux premier face to face bi war a am fële na la ci diwaanu États-Unis d'Amérique coowam tamit ak Gaston Mbengue gën a jëm kaw. yaakaar naa ne itamit am na solo waaye cercle des VIP la ñu indil ci journal bi bu ñu waxee cercle des VIP nag Amina Ndiaye ndaanaanu lamb yi la ñu wax. boo xoolee ci premier lieu bi ki ñu indi moom mooy le roi des arènes Modou Xarañ loo ak l'ancien roi des arènes Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante ne ni la Ama Baldé ñu ne nag fi toll nii ñoom ñooy nduru patron lamb G8 de l'arène lañ leen di woowee ñu daal di cay njëkk a fësal Modou Xaragne Lo mi nga xamante ni mooy roi des arènes Balla Gaye 2 mi nga xamante ni nag kenn dootu ko présenté borom géej waaye Ama Baldé jàpp nañ ni ñoom ñett ñooñu ñoom ñoo nekk patron VIP yi jamono ji Gris Bordeaux menacé ndax li nga xamante ni moom moo xew benn 52 de Mbour moom nee nañu mi ngi bunt bi te bu ci tasee ak ba daan ko loolu mooy agsi na ni faraax. agsi na ni faraax waaye Eumeu Sène Lac de Guiers numéro 2 Tapha Tine chaque fois ñu ngi joué seen place ñoom pour wane ne ñu ngi fi. ñoo ngi joué seen place di wane ne ni ñoo ngi fi te dëggantaan njaay sax ay VIP loo xamante ni ñoo ngi fi waaye dafa nekk loo xamante ni dinañ ko gën a confirmer waat ci saison bi ku ci nekk ci sa combat. yaakaar naa ne am na solo et que tamit leeralité loolu rek la woon. waaw loolu lañ leen indiloon ci seen xibaaru revue de di leen jaajëfal yéen ñëpp